nga ñu taxaw Franc la àndal ñii Franc la ñu àndal Franc boo xoolee li mu ñëw arène nationale gis nga Franc ngoo nguy teg affaire ya yàgg maar ngay defar ci la xoolal loolu cey yàgg Franc l'adversaire de Tyson 2 benn senu ñaar toog na waaw mu ngay laaj butéel xool nañ ko koy joxe benn yàgg benn litre génn na ñaari litre ñetti litre ay yàgg maar lii buñ la ko naan loo juróomi litre yàgg lii buñ la ko naan loo dina mitt juróom benn juróom ñaar juróom ñett juróom ñeenti litre fukki litre ak benn kay ak ñaar yàgg maar lii buñ la ko naan loo dina mitt ci yow de ku loon kaay nga naan lépp ma la 100 millions est-ce que di nga xam. yàgg kii wéet na de mbër. mbër lu xew. ci loo ne. Ah? ci loo maa ngi sant. foo jógee. man Ngunjaan. waaw waaw. foo dëkk fii ci Dakar. man Liberté 4. Ah, waa Liberté 4. waa Liberté 4 laa waaw. kii ya dëkk kii Liberté. xam naa ko xam naa ko ñoo bokk koñ. Ah, suñu xam nii lañ def. waa xam naa ay rakam ñoom lin ñoom ñoom ñëpp. biram ñi mooy sama mag Ngunjaan. waaw ma la ñuy naan yaa xadi waaw waaw waaw. ñu si jàmm bu baax. waaw waaw. da ngaa ba pare wala. waaw bëre naa ba qualifié premier tour. Ah. alarba bi maa ko jël maa maa daanu. léegi bi waaw. tey xalaat nga final. waaw jël bu soobee yàlla. da nga koy jël tey. incha bu soobee. daw na jëli ko. papa yor bu zone bi wane ginnaaw. séeri ndey géey bëre yàgg saal ba séeri ndey bëre. ne xale ba Zal Séri Ndeye Gueye xale bu mën a bëreel nag papa. non non non tey moom mbër mi ñëw. waaw ah, tey mbër mi eh nañ ko de daan nañu papa booy jinne waaye yéen lii yomb na di waaw papa booy jinne mi lu ko dal eh, eh, eh ay waay yàgg papa mi moom niñ ko daane yomb na Zal bi jël nu mu tudd. non damaa gëstu gis mu jaaxaan waaye gisuma jël bi. booy bi daa daw këf tànk bi. teg ko loxoom ci kaw. kooku da da da koo sulli da koo yéeg. yéeg ko da koo yéeg. papa waaru na. ah lu muy gas xanaa daa jaaxle kay. papa kay bu gasee rek jaaxle na. maar golo saa ko gisee muy gas xamal ne xel ma jaaxle na. golo yéeg lañ ko xamee bis bis bu gasee jaaxle na. papa bu jaaxlee rek am na problème mu ngay gas de. papa looy gas. papa looy gas. waa kii lu muy gas ah man de papa li muy gas xool papa booy jinne jógagul fa mu toogoon papa jógal ñibbi mu ngay gas suul mu ngay suul cey lam lambi simple daa doy waar de jóg na gas na ba li mu ngay dem waa demal mbër mu sportif la nag demal sangu ji Papa Boy ji ñuy moom bëre ba neex na de. Bulldozer la. Bulldozer bu wee ay waay kooku itam daan nañ ko de ay waay fii jël yu rëy rek nga fiy gis. loolu loolu mbot mu ñor la. billaay mbot bu ñoree moo tax sàll ñor tàbbi. laa ilaha illa ku lëg lu nga sam andi. lépp loo gis bu ñor baa ca dàq. wallaay ñor a baax. bëgguma luñ gaas Babacar. wallaay gaas baaxul day daw day yàq biir. du am gu. sàll gaas baaxul. gaz doo am guuta lay jox feebar. ñor tàbbee wóor. laa ilaha illallah. kenn du saaliw ba ñor tàbb. loo wax ci làmb téere wax na lu leer laa la wax daa ñor tàbbi de. Bulldozer te nga def ndànk. Bulldozer defal ndànk moytul mu këf sa tànk eh caxabal ba xanaa gisoo ko takk nañ la. waa takk na ko di ña li li sol na ko naax. Eh. dóor tànn Bito seetaan na ko. da koo ak boppam ba mu ñor. ba mu mu togg moom it teg ci kawam ñor waay. billaay wallaay. saal ñor a baax. da ko dëpp naax. na lépp di ñor. naax naax bi xam nga naax bi suñ ñoree ba sax. ba sax ñoom ñaar dañu koy séddoo. léegi nag pour nga séddoo ko foog nga yow foog nga takk ko yow it. ndeysaan foo gëstoo côté boobu rek côté boobu day neex ci yow. koo koy saaliw ba. Kaaw Gourdin albarka lay dajel ngi lay bëgg. ñoo ngi lay delloo bëggee sama sëriñ. tournoi ba tirage ba génn na. yëg nga ne albarka ngay dajeel. waaw ñaan mu nangu la. loolu nga doon ñaan. waaw. kontaane na da lay duma de. ah de la la bëgg a def la wax. waaw yàlla baax na yal nañu ci yàlla gi ñu jëm. ñu dugg ci bisimilah rahmaani rahiim génn ci alhamdulilah rabbil alamin yi gaaw a waaw ñu nekk ci. man nga am 9 point yow. ci kàttanu yàlla moom laay ñaan te te ma gëm la waaw. albarka la la moo tax nga doon ñaan a bëreeg moom. waaw parce daa leneen luñu ñu lu bokk teg gala bi. ah loolu biir la. waaw te jour yi lay leer. da ngeen a mos a daje ci bu non non mosuñu daje fenn mais après day leer. day leer am na solo. aja sama sëriñ jaajëf. yàgg kii mooy Jibi Thiaw maire Réfane mën naa ne bu la neexee sax nga tuddee ko jàmbaari fàkk tëdd ndax gis nañ ni muy défendre Bawol rawatina commune bi mu yore muy Réfane bara jon la àndal. muy président Bawol sans frontière ak yeneen gars yi kii nga xam ne nii moom mooy waa Bada waaw Bada maa ngi koy nuyu xam nga reefan moom macha allah dama faa bëri ay mbokk nag maa ngi lay ziar monsieur le euh, maa ngi lay nuyu di la ziar euh, Babacar ak euh, ñiy seetaan Equivox TV yëpp di leen jaajëfal aussi ci liggéey bi waaye. tey bu ñu Bawol sans frontière. yow ngay doomi bawol Fallou Ndiaye jël drapeau duppee leen ko nga ànd ak ñoom Bada Ndour Bada Jonn ak waa bawol yëpp daal bu ma limee dinaa juum nga jiite leen ñëw tey loolu lu muy def ci yow ban yëg nga ci am en tant kilifa gu nekk ci bawol waa yëg-yëg bu rëy ndax euh, bu ñu doomu bawol bu tëggee làmb tuddee ko waa bawol à travers association bawol sans frontière bi nga xam ne suñu grand frère di suñu wëllëre di suñu xarit ba day jot na duur moo ko jiite Euh, mënu ma woon ñàkk ñëw. Mburok Ndambe waa Mburok Ndambe mii Mburok Ndambe lu mu bëgg def Kaaw Gourdin ay mburu waay xool ko Kaaw dina ko daan de wala Kaaw Kaaw ak mburu xool mburu Mburok Ndambe moom lu neex la tudde boppam. e way naw Samb Mburok Ndambe jàppante nañ ca kaw Kaaw jël na tànk ba Kaaw këf na ko da koy daan eh eh eh déet da daanu mburu mburu pare wallaay mburu da ngay pare mburu mënoo génn foofu ay waay mburoog ndambe waay kaaw daan na ko de ah wala arbitre daanu na de kaaw ne na ko génnal albarka kayri seen mbër mi am na adversaire de gis nga kaaw eh, bu paree ma daan ko bu paree ma duma ko day paree ma lay si ko gën feebar bu paree ma bu ko jël bu rëy bu xaar ma duma ko daan ko non man ki daf ma bugg a booleeg àdduna te munu ko la muy def ni mun naa ko def gars ma téye mais la moom si tournoi bi lay jël nii loolu lay ñafe nii man sama kanam kenn su ñoom du ma téye Kaagureen du maag moom waay. mais da nga ma sànq seen diggante leneen la daa am leneen lu ngeen seq. ma ni man poobar laay sulma kaan laay ndëkki asil laay sango jaasi laay bombo lam set laay waxatoo dina laay galandikoo li nekk suñu diggante moom moo ko xam bu dee bor la amul ngaañ na ñëw jour la mu jëm mu taxaw man ñëpp nag sama ginnaaw yónni ma su ma naree ma xaru moo gën bu dee ñoom kaagu ree nañ ma ma bàyyi lamba du maag ñoom te bu soobee yàlla naa ko wane du maag ñoom. mais ni muy daanaka ci mbapat mbëri tiitoo ci. ma ni sama fit munu ci dem parce que gënu maa doon champion ndax ko ma bëree munoon naa def mais na respecté liñ ko wax lii signature contrat la bu dee ñeme na na ñëw. géew ba maa ngi moom la géew ba maa ngi moom la maa ngi woo sama waa koñ maa ngi woo monsieur le sant seen añ. maa ngi woo ñoom Bari ñoom Joël ñoom gran petit maa ngi woo ñi ma xam ñëpp grand Issa Salba maa ngi woo sama mbokk yëpp ma kenn na ñëpp ñëw jàpp si combat bi tournoi bi day metti mais si kattanu Yàlla suñu borom ci bopp albarka la jëm guddi guddi si kap guddi guddi si kaap waaye poobar laa suba waaye ñuy doy ñu mën dëkki ñuy doy ñu mën dëkki laa la wax kaap wu ma ma ma taxoon signature ba ma wax la ma wax teggi naa ko dinaa yamale lekk bi xam nga seeñu beeg yooyu noonu ma bàyyi looy def léegi. déggoo ma de damay bati saaf songu jàpp siggi daan. incha allah déggoo ma de. ji sa combat du niil yow. barki Rasulullah sama combat bu niilee mu may sama reliquat man du ma mbër yooyu man dama nekk ci yoon. bu ñuy foogee ni ñoo ma a nekk ci yoon dañuy nax seen bopp sama mbokk yaa sama ginnaaw maa ngi woo waa baraka bàyyi ma kenn waaye nen rabame babiram mi no di foo yo foo torono lang tourna wala intéressé la ngi di moo waaw maa ngi woo ñëpp foogale séeréer mi mi o albarka kam jeg tournoi kam bug fop ko ñaana nam billaay walaay talaay ma jeg ndam xam nga waaw man xayala maa ngi ci làmb wax ji wax ji mooy ñëw jëf wane résultat te si kattanu yàlla suñu borom fa lañ jëm si kattanu yàlla suñu borom lay wax idaali ñëng idaali ñëng dama koy ñaana comme ni may ñaanal sama bopp yàlla def la mu bëgg yëpp anto noonu may woo sama waa écrit bàyyi ma kenn waay bu dara desul lu dul làmb ja bu soobee yàlla idaali day bëgg ñun duñu ay ñëw di yéexantoog di non non man damay ñëw bati saaf damay ñëw xoolal waaye lekk saa sukki man du ma morom sa ku xii ma noxu la ku ci bëre ma daan la jël bu rëy maa ko dénk tey man la dofu yàlla bi amul lu may dellu ginnaaw ak lu may xaar amul loolu déggoo ma maa gën a bëgg ci gën a kontaan ci yàgg maar xoolal lii yàgg lii doy na waar e eh way cumukaayil sambala kurus ga ca loxo ba mu ñaan rek si tëggkat waaw da siy def ndox rek da siy def ndox xam nga attitude moo baax tey da jëloon gaal gi jël jël euh, mercredi tey géré ko ba yegg final li ci dem man amaluma intérêt li ma bëgg rek mooy mu wóor nga assuré ni da ngay dem final loolu rek moo ma ci li nga koy gérer mooy comme li ma la wax rek bul nangu di joxe sa bi commencé fii ba ci ko joxe toujours yow foofu nga leen di attaqué di commencé seen ngeen ba ci suuf rek waaw gis naa même sànq li nga bëri yoon la mais toujours loxo yii dee ko fël bul nangu mu fiy des te dee ko fël dégg Mari Yekine Ngongu waay Yaxya waay ndeysaan yàgg maar Yaxya ngi nii toog yàgg maar Ada Boy ak Franc waaye bii tirage waa parcelle la boole tey Ada nee na pare na ñoom ñaar boo xoolee lamb Yékini tëggoon ca Mbuur ñoo ko finaal woon faraan daan ko waaw ñoo fa final woon Mbuur Yaxya ko tëggoon mais Yaxya Jóob Yékini garam bu bi mu sol kawe na. waaw kawe na. laa ilaaha illallaah ki ko ñawal naxu. kilifa la waaw kon defe naa ñi ànd ak moom war nañoo xam ni ñuy waxee ak nit ñi. dëggantaan loolu parce que Yékini royukaay la ci Sénégal. waaw loolu moo ko fi def kenn waxalu ko ko lu mu def la. xam nga léeg-léeg dañuy bëgg fës lool. ba mu ëpp. te am na yooyu nag wóorul. dëggantaan te nag yàgg maar fi may gis am na loo xam ne kenn duma ko teg. déedéet wax dëgg yàlla duma ko nangu de ya moom bay na waaram loolu moo waral tey Fallou Ndiaye di ko sargal Fallou Ndiaye tam juumul. mais ku sa Babs faaw ñu na la dëkk micro loolu moo jaadu. loolooy am sax. yaxe dina wax ak man de dinaa ko dëkk micro de. moo jaadu. yax ya ku joxe cër la. ku respecté boppam yi kii nii. yaakaar naa bi muy bëree. ba ni mu bàyyee bëree. wanewul ñàkk fayda wanewul soof. toujours égal toujours égal lui-même rek. Franc ak Ada booy bawol jàppante nañ atte nañu leen lu xew avertissement Ada lu mu def arbit bi gaa yaa ngi koy yooxu Jacob Baldé nañ la daan arbitre bi de gaa yi ànduñu ak moom ci li mu def aada daw na jëli ko Franc génne ko aada jël na ko aada jël na a ah, Franc Franc bañ na aada na ko daan hee aada booy bool ak Franc di bantay ngemb da koo bëgg a tël Franc lang na aada ak Franc aada ak Franc eh yëkkati Franc bañ na de day mitti de Franc daa diis aada jàpp na ñaari loxoom dër Franc koy da koo nax da koo nax ci dooleem la ko jaayee ci dooleem la ko daane xolal waa ji daa mer moom ki ànd ak Franc junni la ki ànd ak aada daa mere junni kookoy junni nee na ko bàyyil jàmbur waay déet waay junni nee na ko bàyyil jàmbur junnee ngi dal ci kaw fara waay junni mi ko dal junni bàyyil Franc ay junni ak bëgg waay xoolal junni Franc def na la muy def moom mu ngay dem boolew cay wax de booy dañ lay daan da doole waawoy ah bëree doole doole yi du benn góor daan na ko daan na ko ba bës ko ca suuf sa Diop Yékini andaay dëkk waa Njom ndax Yaxya nag lu mu def ci lam jafe na nag mbër di ko def ndax toog der roi des arènes huit yoo xam ne yaa ràññee bëre nga say rak bëre nga say nawle bëre nga say mag bëre nga ak say ñëpp te nag boole ci nag def ko nag ci fair play ah, def ko ci l'histoire du Sénégal ndax ka fa gagné fii yóbbuwoo ko fen fii nga koy yemale ci réew mi kon nag. Saliou Ba damaa gis sànq Franc Ba bàyyi loolu. man de Saliou ba jaaxal nga ma eh Franc Franc xale bo da koy daan da koy daan yàgg wër na ko ndombo Sall Franc Franc ak xale yi. ana Franc moo wër ne ndombo xam nga nag moom du xeeb combat lu mu tuuti tuuti soo ñëwee da la jox respect bi nga xam ne moom nga war a sa diggante ak moom. moo tax euh, su ko tegee ci yoon de lim lim bëgg ci xale da koy am. da ci am lu bari. a ah, ñu ñu yoon yónni yàgg xool ba xam. waaw ñu nga ja suuf de yaakaaruma fii xale bi jóg de ah bu jógee dina ma bett de ndax 120 kilos bu wër ndomba waaw ak sa kilo kilos muy 220 kilos waaw ba pare jóg sa kaw waaw pour nga jóg du yomb baamaar wallaay boo jógee itam xam naa boo sàgganee dama sangu ji lañ lay wax rek eh ndox ngay reere xalaat naa ko de basu ji laal ndox kookoy saaliw ba bu raay bi FM Franc dina ko daan de. booy da ngay daanu daanu nga bu yàgg. xam nga nit bu wëree ndombo. ko neexee waaw sant yàlla ñëw tey ci Bawol Bawol yi rek. waay grand mbubb bi. waaw mais tey dama laal Ila Mourtani. <laughs> merci beaucoup. vraiment dugg nga. fàllu loolu. rek. comme niñ koy waxee chaque jour. Euh, euh, kii ngi koy bégee. di wax ne ragal féete day xañe wërsëg. ñun Bawol Bawol li ñu ñor. mooy fexe Tapha Tine nekk roi des ragal féet nag day xañ a wërsëg te ñun duñ taayee ko wax te ñun luñ nek ñëpp dañu xam ne ñu ko ndax luñ gëm lay nekk ñu ngi koy ñaanal suñu borom mu def ko roi des arènes te incha allah ñun ñëpp nañu dugal suñu loxo jàpp ci ba li mu bëgg suñu boobam moo ko xam suñ boobam defal ko tamu yomb lool ci moom jàpp ne daal am nañ mbégte kontaan nañ ci moom kontaan nañ ci Yaxya Jóob Yékini seen présence am na solo trop ci bis bi kontaan. Tóone ak général xàmme nga Tóoni moom nga fekkoon ca Dar Kassé Gambia. Tapha Tine tey na Mauritanie la dem. mais Tony luur lay bëre. luur la bindul a ah, luur lañ ko bindu de. mais Kaaw lu tax muy bëree Babacar. parce que am na ñoo xam ne tey dañoo yéex a ñu. waaye. loolu moo tax. bi war-war mais combat bu doy waar xale xale bii ñu naan tuuni ah loola waaye mën a wax na général Malika def ndànk de. dooneeg général Saliou Ba Tony day nee na général Malika damay bëreeg yow force. xam nga xale ay luur lese lañ ndax poids bi mu yor 85 loo ci loo ci teg rek commencé dugg luur léegi nag gars yi dañ leen luur mais dàqu ñu leen bëre. parce que daaw dama ko seetaan. mbuur Yékini moo tëggoon làmb ji. lit simple demi-finale mook aada booy bawal. mu bëre mu bëre bu doy waar. moom Tony mi gis xale bu takke la waaye doole ji laay xalaat ko ëpp doole mais dàq koo bëre. dàq ko bëre loolu kay lu leer la. Uh-huh. mo xale bi kay maa ko xam. lu général def mu dindi ko. gis nga mën nga ko ëpp doole poñe ko daan ko. te dawul benn yoon rasul benn yoon. non du ñu daw jox na ko boppam. terewul mi ngi bëre lu général def mu dindi ko. wallaay daa mën a bëre. Uh-huh. mën a xanaa xam nga mën a bëre doole la. doole la wax nga dëgg. borom xam-xamam wax loolu mooy Zalba. dina ko daan ñoo nga ca ñoo nga ca général Malika Tony xale bi fekk naa ko Gambia bu yàggul Tony uh-huh. ca làmb ju fa Fallou Ndiaye tëggoon uh-huh. waaye daan na bëreel Tony mi gis nga gis nga de. gis nga non xale yu bëre. gis nga. xale xale yu bëre gis nga jargandalu yu muy def. voilà su commencé am 30 su ko defee daanu. li yëfu xale la. affaire gune la waaw. cey wax nga dëgg. yaay tàggat mbëri yaa yor lan 2000. maa la wax lii loo wax ma bind ko téere. parce que les foog nga doon gune pour man ko. waaw waaw maa ngi fàttaliku 2007 2008. waaw. Malone Ndiaye l'an 2000. yokkaat na ko waaw. ci stade Iba Mar Diop. waaw Malone pakate. ba yaakaar na l'an 2000 jeex l'an 2000 tuut teg conc bi. waaw galgal tànk bi xatar bi ko. sooy lool. waaw Lamine dégg ko dégg ko kii. waaw Lamine dégg ko dégg ko kii. seetaan na ko wax na waaw mais xool xale ba xoolal xoolal. général na def ndànk. méttul boobu la boole bu dikk weer daan na ko. boole bu dikk la daan na ko. daan na ko laa ilaha illallah daan ay waay Tony waay ay waay Tony waay ay mën a bëre doole la dégg nga mën a mën a bëre doole la général la xale bi tudd Tony kër mbir général waaru na allahu akbar xale bii comme Ronaldinho ci football daa mën a bëre. te Babacar gis nga bëre poids lourd moo gën a yomb bëre poids léger poids léger ñoo dàq bëre poids lourd yi nga énergie bi ngay def ci poids léger soo demee lourd doo ko am Tony fii keroog ci poids léger bi dafa teel a toog kaa Gourdin moo ko daan n'est-ce pas tey mu ñëw daan benn poids lourd boo xam ne favori la ci biir tournoi bi. xool koog bum bi xool xale bi ab lebu alem lebu yàgga maar toone ngi maa ko fekk Gambia sa dar kasa ya ma xamal benn affaire tournoi bi mbëri tefes fi des tey sal wax nga lu doy xoolal bu baax li ma la kon tey tefes kontel ñaari mbëri tefes ñoo fi des xoolal tooni gaa ngi ko topp nit ñaa ko topp daa def lu doy waar ba pare moom géej tefes la ak kan góor a mbërum tefes la ndax parcelle la dëkk ci boori tefes gën. daan nañu kaw Gourté. ci boori tefes gën. daan nañu kaw Gourté. Boy Sil. Boy na <laughs> tey. waaye yii jëli yu rëy xoolal kaaw. ma kii mooy Boy Sil. Pikine la ne. kii Falaye Balde. ko jàngal bëre tudde ko boppam. allahu akbar ay yàgg maar ka waaru na ka waaru nga taayan ku naan génnal ohoho gaayan ku naan kaaw guurdee daan nañ ko jëli bu buñ la fayee sa bor nga mer la nga leble yor na butéel ba loolu mooy sangu te ñibbi kaaw sangu te ñibbi rek yow da koo defoon ñal nag mooy jël tournoi lese yi waa kaaw waaw kaaw tey affaire yi baaxul mais nii la sunu borom nekkul chaque jour lay ànd ak yow lami ñun ay sport lañ ay sportif lañ dañoo ñëw pour compétir mooy loolu yàlla baax na sunu borom nii la ko dogalee luñ ci dara ban erreur nga def ba daanu amul erreur damaa war a daanu rek damaa war parce que ñi ma daan ba yegg fii gënuma leen waaw tam rek lay demee. di courage. waaw merci gars yi. aja Babacar. waaw Tony noo daane général général noo ko daane. waaw xanaa bëre rek bëre rek parce que ñëw ñaari yoon di ñàkk samay fans di ma yëpp woo ni ma da nga war a bëre bàyyi si caaxaan ma gëm ni li ñuy wax ni am na barki Seydina Mohamed. Tony bu taxawee uniquement waxuma la poids lourd waaye poids léger taxawal amul mais nag lamb moo demee noonu te bu dul dara sama ngemb damaa réeroon ngembali yi gëj ngeen kaa gis Babacar damaa réeroon ngembali moo ñëwoon buur ngembali demoon Fatick moo jëloon 3 millions yëkki nay 2 millions di jaxadey Babacar sant yàlla bu di sant waa Jandeer wàccal tuuti billaay wallaay ah toone ngoog yàgg maar nana ngemb lee ko réeroon feeñ na waaw nana ngemb lii da koo lii mu ngemb wax na dëgg gëj naa koo gis ak ngemb ca mbuur daaw boy sil buddi na ko ee yàgg maar buddi dóor waaye boy sil mi ta yaram mi tàng na de aa ah, gis nga xale pikin bi turandoo sil bal wii a baax na génn na kaaw gourdin ñu ne déet ne waay mu buddi kii ba ca kaw dóor ko ci suuf Ah, baax na yàgg maar defe naa ne yaa ngi ci beneen demi final lese bi sa mbër mi nga jàkkaar lool mbërëm liberté 4 ma daan nañ sa mbër ma yàgg sa mbër ma daan nañ ko da doon mboot ñu bës ko mu jiital bopp ba jógal sangu ji booy sil te yaa dem final lese waaw sant yàlla rek waaw sant bu baax a baax. li nga fiy foo toogee woon. ah. li fiy mujj foo toogee woon. final waaw mais sant yàlla daal. waaw incha allah lu ci kanam loolu yàlla na yàlla defal jàmm ñu jël ko. xam xale bi ngay dajal xam nga. caatu maalaw non xaw ma waaw mais yàlla na ma may ndam ci kawam. foo nekk ci Falaye Balde. Falaye Balde waaw su ma turandoo moo ma romb léegi. usine Balde la ënd. waaw ndam rek incha ñoo far yow. yéen ñaar yéen ñaar lu ñoo book lépp ñoo bokk yaay ñoo bokk papa. yaay nijaayam xaw waaw maay léppam moom tamit sama turandoo papa la waaw. tey ngeen ñëw si mbapat mi sa ko. dañoo ñëw pour compétir rek. waaw l'essentiel c'est de compétir moo tax ñu ñëw. ñaan yàlla affaire bi des fi. yéen ñaar bu ngeen dajee nag. waaw suñ dajee ñu bëree rek. yaa moom ku dàq. moom a dàq bëre fuuf mais suñ dajee dañuy bëre. moom dàq bëre de. moom dàq bëre fuuf. jarbaatu Ama Baldé. waaw gis nga. ma ne ñu compétir rek. xam nga liñ toog si corona bi lamb amul. wala pour ñoo compétir da ngay ñoo xam ne nii sax daanaka sax ñu la ëpp tur si làmb mais nit da ngay gëm tey moom lu mu laaj nañ ko def lu yor moom yàlla rek yaa ma gën a xam. ci kanam mbër nu na lay mel xoolal kii xool ko moom day daw rek e ndaw mbër xanaa yaram bi daa tàng. daa tàng. billaahi. maa ngi nii. noo tudd. njool man maa ngi jool sana lillaahi wala xaar ma fële xaar la ci kanam waaw damay yëngal waaw na gën a gaaw Pokola war na ko ndombo jarbaatu Ama Baldé ba zal ba kee jarbaatu Ama la de waa kooku sëtu Fallaye la Fallaye ay maam ja Pokola daanu na de Pokola daanu na de wala waaw daanu daa mel ni arbitre jox victoire eh jox na Pokola victoire kon xale baa eh, moo wër ndombo fii. wër na ndombo Bruce Lee numéro 2. Bruce Lee numéro 2 la aada wër ndombo. xanaa da koy daan. wër ndombo ci bëre. daa mel ni penalty la. waaw waaw penalty bu rëy sax. penalty bu rëy Ba. rawatina ki la wër ndombo xaw laa ëpp doole tuuti. Karim Ndiol daan na ko de. waaw waaw. na ko mu jaaxaan. loolooy jógal ñibbi sangu ci Saliou Ba. loolooy demal laali ndox mu ngi koy akolaat. di ko remercier wax na dëgg. tanoor bu jurbel tanoor bu jurbel tanoor bu jurbel ay bëre noonu tanoor a ngongu bu max mbargaan du moom tanoor bu jurbel waa kookooy tanoor mooy bëre noonu bu jurbel lool poids lourd yi la ndeysaan Saliou ba lambi simple la ngi waaw lambi simple soo ko bëggee gis bëre fii ngay ñëw soo miinee bëre simple benn combat da la jaaxal muy reporter bi di caméraman bi di mbër mi ñoom ñëpp soo ñëwee fi compétir dara du jaaxal. wax nga dëgg lii mooy nawet mooy nawetaanu mbër Papa Thione ko waxoon yàlla na ko yàlla yërëm. eh waaye Sall Mbayang li muy wax neex na de ah Saliou Ba li Mbayang di wax. waale li Mbayang di wax neex na ndax mbër yëpp a ngi yëngu tëggkat beeg eh, woykat bi heure bu heure bu ñu amee bu neex ci ci ci ci ci mbëri nga koy ci nekk da ngay jëg sa cumbukaay di jaayu sa ñi nga xam ne ñooy reporter sax dañuy yëngu. dañuy yëngutu ndax man des fois ma yëngu. des fois Saliou ba yëngu. du mën a ñàkk. des yàgg maar yëngu. du mën a ñàkk. bilaay yaa wax dëgg kookoy Sall ba bu zap. kooko yore lan 2000 ak yeneen i mbër. cey. waaye tanoor daa mel ni mën a gut lu bari ci xale bi. tanoor mën a gut lu bari ci xale bi. ndeysaan hey waaw waaw tanoor te nga moytu day togg mbot mi mbërum tànk la moom tanoor ah, da koy da koy kàmbal loolu lañ naan lal da koy lalal heure bu jaaree ci wet bi dootu ko wax ay booy tee ngaa bañ a tëdd fi ñu lay lalal. Fara gisoo ni mu àjjal loxo bi daw jël ko. day bëgg bu jaar ci Fara gis nga jox ni mu ko ko joxe. Oh, oh, oh. gis nga ko. gis nga waaye xale bi yeewu na de. da koy bot xale bi yeewu na de. war na ko nomba de. sa lii wóorul de. non penalty la wóorul lii wóorul tanoor. tanoor moom ni mu mayee bari na. xale sew na waaye am nam xel de. waaw waaw xale bi am nam xel de. xale boo ko bàyyee may ko wet. lu ko may du ko jël day jël day jël ba jël leneen. waaye génn na ci. génn na ci. génn na ci dafa fecc loxo yi def rotation jàkkaarloo uh-huh. feccil say loxo. cey loolu. Bawol sans frontière. sargal Yaxya Jóob Yékini cey lool hee mbotum tànk kooku dama ne la kenn du jaar ci wetam muy gauche droite nag waxoon nga ko xale ba su ko xamoon du jaar ci wet yi wala su fay jaar mu fa yàgg fa yàgg daa tardé te ku tardé am problème booy da ngaa jógal sangu ji xool ko dafee nu na yàgg maar jógal sangu ji da ngaa ñu mbott la Mbine gay mbin gay kii moo wane ginnaaw mbërum waa sen la mooy mbërum ñoom jib seet ah. waa mbin gay kii moo wane noonu ginnaaw war na daan de moo nu wan ginnaaw ndax jib war na daan ndax jib seen oh booba jël rëy na waay xoolal loola ca ruq ba yàgg maar sama xel dem na ci brisli bu faas booy ba waaru na nañ la daanee rëy nag nañu la daanee rëy doomi Serigne Ndiaye la daan boobu jël bu rëy mu ngay ree baay ba mbër la woon paap demal sangu ji paap yaayey jàpp sa ndik xamoo li la daan sax bilaay bëre simple bii da yaakaar dangay ñëw noonu rek di bëre e waay da ngay liggéey gay ki taat na ko ohoho waay mbërëm Petersen ma waay mbin gay ki waay ngunjaan la dëkk boo déggatee mbin gay gi ci séréer mooy kër diw ah. kër gay ah. mooy mbin mbin gay ki comme ñu ne mbin mbin yàgg maar mooy kër yàgg maar